waaw tey ñu ngi euh, jërëjëf euh, soxna si waa TV info ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Tivaouane di nuyu waa Sénégal yëpp. Euh, journée bi nag démb la 72 heures médical Tivaouane médical lañ ko tuddee commencé na démb. donc on a fait une séance de circoncision Il y nañu euh, le nañu euh, témèr ak le ak je pense qu'il y a ay xalé.

c'est euh, une satisfaction parce que nit aussi buy di effort ñu ñëpp ñu mobiliser des jours nelawuñu lekkuñu mais bu yalla yalla des li nga ñu def nit ñi bëgg fajar fi la leen fekk ñoo 4 du matin ñëw satisfaction la ak contentement et puis motiver bu yoon ñu ñu donc vraiment c'est un motif de satisfaction.

parce que wane na aussi ñi nek ci mouvement bi ay jambar lañu euh voilà ko ci nek lepp lo man rek duggal nga ko ci pour bëss bu melni mëna taxaw. waaw mu mel 72 heures lañu wax est-ce que tamit desul benen jour boo xamante ni lu jëm ci walu yëngatu lay doon ban jour la. waaw muy journée suba bi parce que comme nima ko waxe sax aljuma lañu commencer tay ñi ñu ngi ci samedi bi suba déssé nañu muy journée randonnée pédestre bi euh terrain préfecture la ñuy à 9h wër Tivaouane wax ni ne leen euh, sport dox. am na euh, solo ci wérgu yaram parce que itam nga bañ a feebar moo gën nga bàyyi ba feebar donc war a faju ji donc loolu moo tax suba ñu di ko def donc ñu ngi jox rendez-vous ñëpp demain 9h euh, terrain préfecture incha allah waaw. kon mu mel ni Dia ñu bu baax a baax moom mi nga xam mooy le coordonnateur muy Yellamine Gumala ci kàddu bi nga xam ne yëkkati na ko ci leeral leen li nga xam ni moom mooy 72 heures yi naka lay tëddee boo amoon tey benn appel booy lancé wala benn conseil booy jox ñi nga xam ñooy mouvement yi nekk biir Tivaouane wala ak li ko lan lay doon. waaw xam nga souvent dama koy wax euh, Tivaouane dañu am chance su

dajaloo faire ba def ben bloc bo xamné ne lépp de bëgg def dinañ ko def sans problème merci beaucoup